Un thème que le ministre du Tourisme nous a donné, c'est de parler de la destination Sénégal, de faire sa promotion. Car, comme vous le savez tous, le, tourisme, c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre pays. Et depuis quelque temps, ils ont vu qu'il y a une baisse sensible des arrivées. Voilà pourquoi il m'a dit de concentrer tous nos efforts sur cette promotion de la destination. Et si vous avez vu, on n'a pas fait seulement une soirée élection un programme étalé sur trois jours pour toucher toutes les sensibilités et faire en sorte qu'il y ait davantage d'écho donné à la manifestation. Euh, moi, je m'occupe de chapeauter tout, de donner les grands axes et de, définir, de trouver peut-être des sponsors internationaux au niveau de Dakar. Mais au niveau de Sali, tout se passe dans cette région cette fois-ci. dal leen ak bokk mbokku internet yi naqar ak tiis rongo ñuy tuuru xol yi fees moom la acteur culturel yépp am ci jamono jii ni mannequin Miss ak jongama Sénégal yépp ñu ngi jooy kilee di Moïse Ambroise Gomis dootuñu dégg baatam bu neex ba doon jolli ca télé ba waaw tey ji monde culturel bi yépp mu ngi ci doj seen asamaan niis ndax kilee di Moïse Ambroise Gomis nekkoon ab présentateur bu mag ci télé bi tey ji nii génn na àdduna itte ak liggéey bu mucc ayib amal ngir jaay yi jëmm xar kanamu Sénégal tax na ba ñu bari doon ko woowee prési nekkoon na nit ku yàgg a xar tànk tubayam ngir rek fësal jëmmi taar jigéenu Sénégal muy miis ak jongama te musu cee xaddi moom mi daan taal daamaram ba di wër dëkk dëkkat ci biir réew mi ngir xool ak génne jigéen yi gën a taaru moom mi fi doon animé ay émission yu bari te bokk na ci yooyu yi ñuy duppee kaléidoscope génération 80 antenne midi ca RTS ak yeneen nak leneen nekkoon na itam ki nga xamante ne doon na amal ay jotaay yu bari ci ay jongante yu ci mel nii ciseaux d'or trophée prestige de la coiffure ak yeneen tey jii bëri na ay mannequin yu am daraja ci réew mi te ci ay loxoom lañu jaar lu ëpp ci ñoom danañ ko fekk foofule ca lokoom ya ca immeuble Kébé ci ñooñu mën nañ ci lim Aïda Ndong mi fi nekkoon na soxna kilé di Demba Dia yaa awa mi nekk tey jii foofule ca TFM Eureka mi nga xamante ne jamono ji mooy soxnaat ki nga xamante ne mooy Cheikh Ba di imprimeur ak ñeneen ak ñeneen lim bi moo takk lool ba suñ wax duñu fi jógee ndeysaan mooy Ambroise Gomis dem na yu yóbbaale njàmbaaram ga ay weer ci ginnaaw ci la ko ab feebaru AVC dal bi tëral loolu moo waraloon mu dakkal la passion bi maanaam bëgg-bëggam bu yàgg bi nekk di organiser ay événement culturel ci biir réew mi ci ay kàddoom mi nga xamle moom Ambroise Gomis di wax ni dama am feebaru AVC te boobule feebar indi ay gàllankoor ci sama kàllaama maanaam mënatuma woon wax wax bu normal jaar yoon ne jot na nag jamono ji ma dakkal sama liggéey ngir ma mën a gën a toog noppalu te toppatoo suma njaboot donte sama wér yaram mayatuma may wër ci biir réew mi fu ne ma dugg fa comme ni ma ko daan defee ci sama dooley bopp ak coono ba mu daan àndal waaye rëccuwuma benn yoon loolu nga xamante ne doon naa ko def nii la ko waxee li moo nekkoon ay kàddoom ci mbir moomale Moïse Ambroise Gomis jàmbaar borom jaloore ci wàllu environnement culturel bu Sénégal xaddi benn yoon ci fësal taaral ak dooleel musiku Sénégal mannequinat ak yenn ci ay concours de beauté fii ci biir réew mi kullu nafsin saayuqatil mawti bakkan boo xamante ne mos na dund faw mu mas dee Moïse Ambroise Gomis génn na àdduna ginaaw bu mu làqee ci lu toll ci juróom ñaar fukki at équipe bu Tactic TV mi ngi koy ñaanal yàlla suuf woyof ci kawam tey jébbal njaalam di ko tekk ci loxo loxoy soxnaam su baax sa di Viviane njabootam waa këram ay ñoñom ak Sénégal yépp jërë ngeen jëf